waaye yow benn ginaar gi sa papa indi pour corti suba yow yaa ko xaaj. man tey laa damay lekk xaaj yéen ngeen jël seen xaaj. ah yéen a may fontoo. waaye bu ma mbéj de. tey la sa kort jugal fii laa la wax. te moo tax nga xaaj ko nii. maa tey laa ah, wax am xar tuñ.